bismillahi arrahmani irrahim allahuma salli ala seyidina mohammadin ilfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ما زلنا معكم في شرح kitaabi mawlaana Cheikh Seydi El Hadj Malick الكتاب المسمى بري الظمآن في مدح سيد بني عدنان والمشهور بالنونية يقول مولانا الحاج مالك قدس الله سره متى ما دان بحرك من كدور fasaafin salsalun baxrul amini nabiyun abqariyun aryaxiyun safiyullahi du xuluqin bayooni Cheikh Alxaaji Malik mooy wax daat mi ngi bocceeku nag ngir dem ca këm bëgg dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa sallam ne na matama daana saa yoo xamee baax na comme kii géej sa min ku dóorin ci nax fa safin bàyyi ma ma dem ci géej gu sell ga salsalun géej gu neex ga baxrul amini géeju ki yàlla wóolu waa asamaan ak suuf wóolu ko mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne man la asamaan wóolu <clears throat> lu jiitu ñu koy yónni sax moom la ñuy suuf wóolu dan ko as-saadiqul amin moo tax ba ñuy defaraat kaaba gi ba màkk bëgg a toj ngir kanay teg alxajarul iswadu ñoom ñëpp ñu déggoo ni ku njëkk a duggee baabu salaam rek lu mu àtte ñu nangu ko naka lañu toog rek mu dugg ci bunt booba il avait trente cinq ans ci jamono jooju ñu ne ah kii kay Lamine la moom la ñëpp uwalu mu ñëwee ne nañu wut ñu teg ci xeer wa mu yëgatee ndoor ñépp participer ci kuy lamin mu ne nabi yoon ab yonantu la <clears throat> sallallahu alayhi moom la yàlla njëkk a yónni moom la mujj a yónni na nekk naa di yonantu te yàlla pareegul ci bind aadama nekk na ko sax fekk aadama amut fekk xawa amut fekk nit amut malaaka amut arasa amut kursi yu amut leneen lu dul yàlla subhanahu wa a abqariyun génie la de nag ci luxal arabiya ñu koy tuddee sang bu mag a mag la abqar ñu ne ab dëkk la woon boo xam ne ay jinne fa dëkkoon képp ko xam ne nag sa mbir kawe ñépp rekk ñu askanee la dëkk boobu ne la abqari nga alfaarabi rahmatullah alayhi nee al abqariyu min rijaali man laysa fawqahu ahadun aw alladi laysa fawqahu ahad buñ ne diw abqari la mooy kenn féetewul ko kaw te yonent bi nag moo féete ñëpp kaw abqariyun sang la boo xam ne aryaxiyun aji yaatu jikko la ku dënnam yaatu sallallahu alayhi wa sallam ku koy kan safiyullahi mooy kii yàlla tànn tànneefu yàlla bi du xuluqin kay borom jikko bayoo ni gay aji yaatu wala gay yaatu xakoon wa innaka la ala xuluqin azim kooku kan la Cheikh El Hadj mu ne huwa kooku may tagg al irninu mooy sang bi irninul baraya moo njëkk ci mbindeef yi mooy sangu mbindeef yi mooy seen cosaanit sallallahu alayhi wa sallam sabixul wajhi mooy rafet kanam ki du xalqin borom bind xasinin bu rafet àkkoon bi mooy ki nga xam ne moo gën di sang ñëpp moo fi njëkk ñëpp moo gën a rafet kanam ñëpp moo gën a baax bind ñëpp sallallahu alayhi wa sallam maniinun yowma du ithmin maniinun manuunun gayra di ujbin manuuni yonentu kay manoonu maniinun aji dëgër la yowma bés ba nga xam ne du ithmin borom bàkkaar maniinun aji lompañ la kerek bi ñëpp di wane seen faiblesse moom rek la yàlla di jox kàttan ak dëgër bés la bu nga xam ne waxuma la borom bàkkaar waaye ñaamut bàkkaar sax fa ñuy tiit bu ñëpp jaaxlee safara fudd jant bi wàcc ñaq yi wër nit yi ñëpp waxtaan daw jëm ci maam Aadama yow de la yàlla bindee loxol boppam dëkk la aljanna yow de la yàlla wal ci yow ruuxam wax malaaka yi ñu su jotal te nga wax ndax mu dimbale ñu mu ne ma dama lekkoon garab ga nafsi nafsi dem leen ci noox ñu dem ci noox mu ne dama ñaanu sama nit nafsi nafsi dem leen ci Ibrahim mu ne ma dama naroon ñetti nar donte nar yee du nar nafsi nafsi dem leen ci Muusa dama rayoon nit nafsi nafsi dem leen ci Isa ñoom ñëpp ñu tudd ne sama borom mer na mer moo xam ne mosu koo mer te du ko mos a mereti nafsi nafsi dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ma jóg nag ñëw ci suuf waara su jotal sama borom mu yankawal ma ci xeeti sant loo xam ne mosu ko jox kenn sallallahu alayhi wa ba yàlla ne ko yëgatil sa bopp washfa tushafa sal tuta laajal joxeef la washfa tushafa koo ramuñu tinu ko yàlla di ko jox di ko jox di ko jox te yàlla dee na ko wala soo fa ka rabbuka fatarda sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> yal nañu ramam yonantu fekk ci àdduna ak ci àlaxira ba lu ñu am ci ay projet mu sottal ko lu ñu am ci jaaxle mu dindi ko nu yàlla defal loolu ci barke yonant bi sallallahu alayhi wa yu niroo yaa ngi noonu maniinun ak maniinun bi borom kattan ku am kàttan ku dëgër lay firi bii di firi ku lompañ mu indiwaat yeneen ñaari baat yu niroo manuun ak manuun mu ne manuunun mayaakoon la yonent bi faran joxe joxe koo xam ne ragalul ñàkk xayra zi ujbin mbir moom nekkut di borom yéem boppam yéemut boppam yéemut jëfam manuuni duut koo xam ne dafa yéem boppam yéem jëfam ay kahir limtinaani koo xam ne fay ndamu ndamu waakoon kon koo xam ne lu mu la jox euh, dana la ko fàttali yàlla ne la yaa ayuha alladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wala la yonent bi nag yéemut boppam yéemut xalaatam yéemut jëfam moom jaam tàmm na rek tànn it di jaamu boromam subhaanahu wa taala bu yàlla waxee mu wax ñëpp def bu yàlla waxul su indi xalaatam nangu xalaatu ñeneen ñi léeg-léeg sax mu bàyyi xalaatam te moo gën a jub xalaat dem ci xalaatu ñeneen ñi bu defaan benn plan ñu ne ko ndax ci yow la jógee wala ci yàlla la bu ni ci man la jógee bu ko defee ñu indi seeni xalaat sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu ànd ci ñoom ni mu ko defee ca Badr ak ci yeneen i barab wa miftaaxun mooy alfaatixu li maa xuliqa mooy caabi ji lépp lu tëju woon ci ñàkk ci moom la tijjee ko lépp lu tëju woon ci mbaax ci moom la tijjee ko lépp lu tëju woon ci yiw ci moom la tijjee ko moo ubbi am gi gannaaw bu ñàkk amee moo ubbi yiw yépp ubbi leer yi gannaaw bu lëndam amee mooy wa misbaax mooy làmp mu niirun bàyyi ji leeral inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila bi idnihi wa siraaja muniran mooy làmp bi nga xam ne mooy leeral jawaadun tab la sallallahu alayhi wa sallam lu mu yoree joxe ko joxe na ab aaraab yu ay xuur ci gàtt ba mu daw ñibbi